waaw ah, mais Omar Diop corona moom dugg see ba léegi affaire yi doxul dañuy xëy ibbi toog dara doxul mais sant yàlla quoi waaw ah, mais bagage moom instant dara doxul quoi bagage yi mu nga jëndee ba léegi instant yi xam na yàgg mais ba léegi suñu ay client mais ñu ngi jaay par nank nank quoi mu ngi dox par nank nank mais amoon ay temps daan gën a dox quoi affaire daan gën a daan gën a dox. ñuy jaay xëy di jaay dem di jëndi africain moom dafa instant a pause ah, bu mu dugg see ba léegi moom gars moom am ñoo xam ne gëm nañu ko à 100 pour cent am ñoo xam pour cent mais comme que kër kër docteur li wax rek ñu gëm nañu ko à 100 pour cent moo tax dañuy teg suñu gel takk suñu masque waaw ku ñëw mu raxasu dugg xool bagage yi nga takk sa masque ñu jaay la mooy loolu ko comme que ñoom loolu wax am na mais loo xam ne daa war dañ koy def rek pour aar suñu bopp. Ah, loolu moom mën na see wax doo ma fekkee ma def ñu toog depuis trois mois man rek maa nekk fii si atelier bi xam nga ni metti na suñu yi bëri yu daan ñëw gisatuñu leen mooy loolu instant bi ñu gaa si àll bi affaire bi tar na liggéeyuñu defuñu ne dañuy xëy rek toog daanaka affaire moom feebar moom metti na lool macha allah mais ñu ngi sant yàlla quoi mais metti na lool metti na gis nga sama gars fii nii mooy lool kenn liggéeyul instant bi nii wax ñaan yàlla mu saafaraal nu ko rek yokk yokk yi mooy Médine